waay Moussa, Moussa Moussa Moussa yo tamit Ana C'est wi si buntu bi kay kay kay raxasu sa non kay raxasu rek c'est kay kay kay kay C'est C'est C'est gi C'est C'est daan dugg li C'est ay mesure rek sa sa man musuma laa xamee set tegal voilà léegi xoolal ah. frottel bu baax gis nga xoolal lii waaye ah, yow Ousmane yow man man raxasu nga yaakaar non gis nga voilà ci biir après ci ginnaaw il faut mu def au moins 30 secondes nga xam ne da ngay bomb bu baax sa loxo baara bi voilà <laughs> voilà après waaye da ngay maase wala da ngay raxas. lii raxas la voilà. dégg nga waaye moom boo ko waree jël moom kaw say loxo set. gis nga non non non lii erreur la non mënoo raxasu ba pare ne da ngay fomp yow tamit si sa yére. loolu sama yére yi dara def si nekk. xaaral xaaral xaaral sama yére la kay. xaaral waaye yow. jële bi. xam eh, nga dafa service service bu bees. lii yëpp. feebar bi moo ko war yow daal fompal rek voilà. Samba yow feebar bi yegg si na ay dégg rek laa si am. ok waaw. Ah. lii daf ko si bi voilà. li ngay wax ni indi wóor. projet bi ma indi de mesure barrière yi. ay ah, ban barrière. non maanaam gis na jamono jii. jotaay bu nekk ñaar nit say waxtaan minimum dañoo war am un mètre distance moo tax nga fekk chaise bi foofu. waaye Ousmane kañ laa ñëw fii nga naan ay toogal fee ak demal jëlee rek demal yemal nga mën a yemal ci centre bi. waaw arrière gis na lii moo gën am. am rek lii da ngay da ngay da sa loxo rek non comme laal nga ban bi sa ak sa loxo xam nga yëpp waaw. man saa da ah Moussa. Ah. jamono ji moo ko laaj. jamono ji moo ko laaj ndax feebar bi dugg na si dëkk bi. Hmm. xam nga ko nit ñaay feebar. Hmm. wàllante bi tamit muy continuer loolu moo tax su fekkee tamit ñiy jiite réew mi hmm. ñoom dañu ñuy jox. ay yoon yi nga xamanteni loolu fofu non lañu wara doxé pour mbir bi bax tamit nañ ko def loolu mo gën wa set mom sax dafa bax waaw naka jek set mom dafa bax man mom li moom wax dëgg yàlla ànd naa si waaye man nag euh, projet bi moo ma si indi woon ndaxte amkalla ay Moussa Moussa yow tamit li erreur la erreur la ah, Soy ci soli da ngay jël mouchoir bi nga ci soli ci bir. Eh Ousmane xam nga lan yow man ma tisooli ne alhamdullilah rabbil alamin nga wara wax ya ramuka la naa ay da ngay jël léegi léegi dama lay xamal ni sooy tisooli legi da ngay jël mouchoir so yoru mouchoir Sa nga def ni sa nga tisooli li lolou mo so jël ah, waaw ma juga xam nga ah instant yi nii ñu ngi liggéey te dama bëggoon léegi nag ñu jël salle bu mag bi nga xam gérer comme ça, vous connaissez. Hein? Nous pouvons... Yes, no! Comme ça, vous connaissez. Hé, hey, hé, hey, Moussa, Moussa, sans délai, sans délai, sans délai. Gagnez quoi sa poche D'un cas, il sent c'est malin. Non, non, monsieur, à ce moment-là, tu ne veux pas parler. cas, il sent c'est malin direct. Tout le monde est au bout. man benn mouchoir dama si doon ñandu dix fois mooy ñëw nga naan ma benn simple tissu li rek naa jël mouchoir bi sànni ko si mbalit mais lan la. Moussa mesures jógewul si man ministère de la santé moo digle loolu xam nga ni feebar bi nga xamante ni jamono ji muy law si àdduna bi yëpp coronavirus. Hmm. ñu koy woowee Covid 19. Hmm. walante bi dafa gaaw. tëj nañ aéroport yi tëj nañ port yi nit ñi dem dikki bi sax arrêté nañ ko ndax feebar boobu. Lolo lu ko waral moy nit ñi ñuy commencé di feebar am nay dëkk nga xamanteni ñu bari sa ñuy dé légui suñu bëgg mucc si lool dafa am li nga xamanteni dañ dañu ko wax lool lañu wara def raxas loxo lu am solo la ndax gis nga loxo day laal buntu day laal téléphone day laal lu nekk motax tax suñ ko amé tamit diko raxsu chaque jour dina tax jangoro bi du nekk si suñu loxo hmm. benen bi moy yow xam nga ni loxo dafa jege kanam saa su nekk ñuy nekk di laal suñuy bët suñu gémmit suñu bakkan loolu moo tax loxo su setee rek su setee rek waaw nga xamante ni dina tax même soo juumee parce que loolu dañoo wax ne nañ ko bàyyi de loxo bii nekk fii nii si gémmin ak bakkan ak nañ ko arrêté loolu yëpp en attendant feebar bi mën a jógee fii te di respecter mesure barrière yëpp arrêté rassemblement yi dajale mbooloo yi loolu yëpp tere nañ ko hmm? te ñu ñaar sax distance bii nii mooy ñu wax un mètre minimum. Hmm. ndax ñun ñëpp ñu mën a mucc si loolu. li moo tax nag ah, am xarit yu baax yi mel ni Ousmane baax si àdduna yi. ah Ousmane bis boo jugee fii kër ga laa jëm. <laughs> ñoo ko la tey kay man maay gàddu relais sensibilisation. waaw ah? waaw soo demee moom <laughs> wax ko wax ko wax ah, waaw waaw distance bi surtout. waaw loolu yëpp. waaw loolu des nii la. <laughs> jàmm nañu waaw bu jeex.